Thank you. téléspectateur internautes yi ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax contentement ñu fi nga xam ne moo di mairie bu Cambérène suñu waxee mairie bu Cambérène xam ngeen ne jamono ji monsieur le maire de la ville de Cambérène donc mu ngi def liggéey bu am jagleel ko jigéenu Cambérène yëkkati financement lu toll ci million millions jagleel leen ko ngir ñu liggéey mbokk yi tey jii la euh, jigéen ñoo ñu ñëw ngir mën a ñëw récupérer seen i financement dem liggéey yi dañuy dugg ci biir xool comité accueil bi naka la ñuy accueillir jigéenu Cambérène pour mën leen jébal financement yi waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo di jigéenu Cambérène jël si financement yi naka la ñuy gisee acte bi nga xam ne monsieur le maire Doudou Pathé Mbengue def na ko mbokk ñu jàll ci biir xool li fa xew voilà gars yi ni ma leen ko waxee ci bunt bi donc dugg naa ci biir mairie bi fekk commission bi nga xam ne ñoom ñoo euh, gérer li nga xam mooy commission accueil bi ak orienté famille toog naa ak kenn ci ñoom dama koy bàyyi mu nuyoo def présentation wax ma mooy kan ñu dugg ci waxtaan nuyu naa la. waaw sëñ bi leen di ziar baax naka ngeen def man la Mbow bokk ci commission bi nga xam ne ñoo gérer accueil bi ak orientation des femmes ci fiche d'engagement yi pour mën a bénéficier wu ci financement avec Soxali fii ci Cambérène. nekk fekk samay nataago yoo xam ne ni benn comité buñ teg la boo xam ne yàlla a le cabinet du maire y a les projet y aussi euh, des sages yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi aussi le personnel municipal sous la coupelle mën nañu xam euh, euh, kan mooy war a bénéficier wu déjà ci li nga xam ne moo di financement financement bi nag la commune ak ñi ci liggéey les partenaires muy IMSEC ak yi nga xam ne mooy pencam Dakar le projet daf ko def. pour képp koo xam ne ni organisation de femmes la boo xam ne yaa ngi fii ci Cambérène bi am nañ sax ci biti ñi ngi démarré naa duñ ci bëgg bokk mais d'abord Cambérène nga bénéficié wu amul nga nekk avec rek organisation de femmes yi ñëpp a ngi ci jeunes filles yi euh, Jamra yaa ngi ci GIE yaa ngi ci mbootaay yaa ngi ci Calebasse yaa ngi mais jigéen ñi lañ ko jagleel financement bi nga xam ne dem na ci à la hauteur de vingt millions de francs CFA. alors gis nañ fi mu toll nii askan bi ñu ngi ñëw di wuyu si mais eh, daw mën nañ xam naka la naka la mbir mi demee pour inscrire. waaw euh, defe naa ne euh, ña nekkan ca gataay ba euh, déggan nañ déclaration monsieur le maire li mu waxan samedi la defe naa ne ñun ñëpp ñu ngi fa li mu waxan mooy lënd yeeg jàmm ñëpp nañ ñëw maire yi ñu commencé enrôlement yi ñu indi dossiers yi organisation yi nekk ci dëkk bi yëpp ñu ñëw. biñ ñëwee nag fekk nañ fi benn organisation boo xam ne ni vraiment euh, teg nañ ko ci ci ci ci ci ci système d' organisation bu efficace mooy tey buñ ñëwee dañ leen di accueillir mettre leen dans de très bonnes conditions buñ duggee nu saafoonte ñoom déglu leen laaj leen yan responsabilité ngeen occupé ci seen organisation féminine bu dee avec bu dee ASEC bu dee Jamra lu ci man di nekk ñu laaj la lan mooy turu organisation bi nga wax bu dee avec ñu remplir ko ci fiche d'engagement bi bu dee aussi tamit euh, organisation de jeunes filles ñu remplir ko ci dañuy def aussi de sorte que de préférence ñu gis les trois responsables muy la présidente le secrétaire la secrétaire général ak ki nga xam ne mooy trésorier ak seen titre ak seen numéro téléphone ci kaw fiche bi aussi gis nañ ne dañ ci def avec suqali avec parce que effectivement avec mooy organisation yi nga xam ne tey moom lañ choisir pour liggéey ñoom d'office mais ça ne veut pas dire que ñoom rek ñoo bénéficier financement bi ñépp a ci bokk yam bu ñu recueillir ces informations dem benn fiche boo xam ne nii questionnaire la boo xam ne nii moom leen di soumettre li leen ci soumettre mooy li nga xam ne tey moo nekk ci lii nga xam ne moo nekk avec li avec defe naa ne ñoom ñëpp ñi ne fii xam nañ ko parce que ku ci bokkut ku nekk am na koo xam ne ni mi ngi dëkk sa kër bokk ci defe naa ne wax naa léegi jigéen ñi fi jógee ma ne leen tey bu ñu doon jël ay organisation de femmes ay jeunes filles di leen former relais yi mën na noo dem yéen ñi nga xam ne yéen a nekk responsable avec yéenay dem former leen kon duñ ca dugg mais li nga xam ne mooy la nouvelle touche nga xam ne ci questionnaire yi aussi ñu ngi leen ko ci soumettre ñuy apporter ay réponses mooy benn bi mooy mbiram santé. ci ponk yi soqali yi santé nag boo ko déggee c'est une compétence transférée yoo xam ne ni état du Sénégal dafa ko jël jox ko commune ñu koy doxal ci base bi pour képp koo xam ne ni yaa ngi nekk ci dëkk bi say moyens demewut noonu nga am possibilité boo feebaree faju mooy la couverture maladie universelle parce que dan koy wax tey nga dem ci nekk fonctionnaire de l'État am nga possibilité feebar faju ci loo xam ne ni couverture sanitaire la nga nekk ci secteur privé am nga possibilité feebar faju ci li nga xam ne moo nekk assurance santé mais tey sunu yaay sunu rakk nga xam ne ñoo ne ci base bi nekk ci gox bi nekk ci koñ bi amuñu possibilité bi kon lii tey buñ ko fi tegee toog ndimbal la loo xam ne ñoom ñëpp akee nañ ko avec beaucoup de plaisir looloo tax ñu ne leen ndax xam ngeen lan mooy avantage semi ñu ne leen benn tey bu fekkante da nga feebar nga dem ci hôpital bi garab gi nekk cinquante mille francs avec la semi tey mën nga am possibilité garab boobu dix mille nga faju loolu dafa neex ba ñu ne la yematu ca tey carte boobu mi ngi jar ñaata 4500 francs te am nga possibilité tey dugal ci say doom nu mu gën a yaatoo nga feebar faju sa doom feebar faju loolan moo ko dàq loolu mooy avantage ñoom ñëpp dana gongo loolu d'accord nañ ci 24 heures sur 24 lan wax ñoom ñi ñëpp ñu ngi toog fi kon loolu baax la doyatul ñu ne leen beneen bi danoo bëgg képp koo xam ne tey fii ci avec ak bu mu ci man di nekk organisation de femmes yëpp calabas yeeg mbootaay yeeg yëpp ña fa nekk ñëpp muy présidente ba di secretaire général ba di trésorier ak membre yëpp bu ko defee ku fa feebar faj loolu lan moo ko dàq ñoom ñëpp d'accord na na loolu tey bam bun na ko waxutan loolu dan na cee war a fekk kon loolu am na solo beneen bi mooy lii nga xam ne mooy euh, cadre de vie cadre de vie ku dëkk ci dëkk bi kuy dox xam ne aussi vraiment kilifa yi monsieur le maire ak ñi fi nekk ñi ngi ciy def liggéey bu am solo gis nañ FERA éléments yi tey ñiy dox di ñëw tase na nag ñoom en dehors de Fera tamit gis nañ Cambérène mu nekk commune témoin ci lépp loo xam ne dafa jëm ci développement ci mbiram environnement ci mbiram cadre bi de vie ba boo gisee fan yi ci ñëpp sax état du Sénégal lu muy abrité journée de l' environnement defe nañ journée de l' arbre defe nañ ko ba defe nañ ba récemment gisan nga programme bi nga xam ne état du Sénégal Cambérène nañ jël abrité ko kon Cambérène modèle la référence ñu bëgg tey avec bu mu ci man di nekk ñu engagé wu te ñoom nee nan adhéré nañ ci à cent pour cent parce que danooy ñëw fekk leen fi kon gongo chaque une semaine ou bien chaque deux semaines ka jëfee ñoom organisation de femmes yi ñoom avec yi ñoom organisation jeunesse yi ak kum ci man di nekk ñu organiser wu nettoyer seen gox seen quartier ba set wicc parce que loolu la leen di xaare fii ci communauté bi wax naa ko léegi dégg naa ci mag ñi wax ne ay jëmmi jamono kilifee dañ doon dox bu leen neexee sax ñu tibbi suuf mokk mais jamono yi am na nu muy demee ku ko def mën naa am feebar dina ci fekk parce que cet googu a dellusiwaat ci dëkk parce que loolu la kilifa yi wax ñu def ko te lool ku ci nekk da war a def kéemte laay kattan beneen bi mooy. aspect éducation et protection de l'enfance dafa bokk ci bàngaas yi nga xam ne tey moo illustré li ñuy wax avec suqali éducation wax naa ko sante wax naa ko nee naan naa leen danoo nekk yoo xam ne ay compétence su maanaam collectivité territoriale kilifa gi nga fi xam ne moo fi nekk mu monsieur le maire di ci def liggéeyu am solo li wax mooy tey képp koo xam ne nekk nga jigéen nekk ci avec ak kum ci man di nekk nan taxaw xale yi ñu jàngi xale yi buñ fa yam rek nañ leen leen di contrôle dem ba ci école yi di xool li ñuy jàng mooy lan loolu la ñuy xaar ci yéen wax naa ko léegi yamul foofu tey xale yi am na xale yi tuut tànk yoo xam ne xamaguñ dara ñooñu tey war nañ leen di man di leen sensibiliser naa leen ah diw kat sa tonton diw dalay woo naa la toogal ci pooj bi loolu bañ ko parce que ëllëg tey boo ko accepté ba min ko mën naa dem toog ci beneen pooju keneen te bu boobaa kenn xamul jamono nu bindoo loolu protéger xale bi la da ci am sax solo kay xale bi booy jógee këram di dem di jàngi ngeen xool ci yan condition lay jàng loolu dafay bokk ci protection de l'enfance lii tey mooy bàngaas yi nga xam ne tey moom moo ëmb lii nga xam ne mooy politigu avec suqali na leen en dehors financement bi tey formation mi ngi fi formalisation mi ngi fi financement doog ñëw kon financement mooy li nga xam ne mooy li gën a tuuti ci lii tey am na koo xam ne ni ñëw na fi léegi li mu wax mooy man de damay dem ci ay foire damay dem ay Dubaay damay dem ay Chine mais tey amaana ci lay gën a neex ñu ne leen yéen ndax soxla ngeen formation formation kan moo ko bañ même boo nekkee expert en médecine ou bien expert en pharmacie ou bien loo ci mën di nekk tey xam-xam du doy. kon tey formation yooyu yooyu ngeen soxla yéenay wax ban façon formation ngeen soxla ndax capacitation financière la ndax entrepreneuriat la ndax tey transformation de produits locaux la yéen xam naa ne ku ci nekk ci yéen xam ngeen ni ngeen di tojo seen seen bopp jinax yéen ma ko gën a xam loolu mooy li nga xam ne mooy fiche yi nga xam ne tey boobu ba léegi ci nañ liggéey ñoom bu loolu paasee tamit aussi damay préciser am na fiche yoo xam ne ni dañ ko teg tey je pense que koy financé ku nekk yoon day wax nga xam ki ngay financé mooy kan tey boo demee ca banque ba un franc sax boo ko fay bëgg a jëlee boo amul carte d'identité nationale doo ko fa jëlee dana waxante dëgg rek sax tey police tey bu doon def opération bu la tasee ak yow yoroo carte d'identité dañ lay ramasse tey ci fiche bi lu soxla lan ne dañ ciy soxla prénom sa tur ak sa sant sa numéro téléphone sa numéro carte d'identité nationale CEDEAO ak sa émargement damay profito di profito di préciser ne lii politique taxu ko jóg ñun politiguñu ñun développement moo nu tax a jóg lii amul ma Samba amul ma Demba amul monsieur le maire amul Cheikh Mbodj amul Ndeye Mboup amul xalifa ñëpp ñoo ci bokk yam avec bi am ak organisation bi taxaw ak jigéen ñëpp ñoo ci bokk yam je pense que 2 millions ku ci nekk war nga cee mën a séddu mais dañuy préciser nii du politique tey bu fekkenten politique parce que nit wax na ko amaana. pour faire taire aux rumeurs ne lii du politique tey bu fekkante ne tax na noo jóg defe naa ne fiche de parrainage ñoo ko gis bañ nañ sax ne dañ ne tey képp koo xam ne ni amoo carte d'identité nationale boo xam ne nii tey def nañ ci ne amoo droit de am am nga amoo de vote yow tu bañ na ko fii amul carte de amul rubrique boo xam ne nii carte électeur amu ci kon kay lool kay war naa doy xel am ndéet sama soxna yi yéen yéen lañ fi nekkal yéen a tax ñuy def de. soxna yi yéen fi nekk maam Seydi xam nga lan laa la wax damay dégg ci monsieur le maire mu ne ma maam Seydi da doon wax jigéen ñi tey bu may dem guerre jigéen ñi laawulu ànd ak ñoom parce que lu metti metti dañuy nekk yow parce que ay jigéen ñi ndeer lan góor ñi moom dama leen di bàyyi fële ba ca kanam ak Cheikh Mbodj rek jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu mais man avec bu Bili Ba laa yor man maa yore maay présidente avec bu Bili Ba tey nga ñëw bénéficier ci financement yi nga xam ne monsieur le mu ngi ko jagleel yéen jigéenu Cambérène lan nga ñu mën a wax lan ah dama ci yëg contentement parce que lii la ñuy xaar ci monsieur le maire li ñu doon xaar ci moom def na ko daf ñu koo diggoon def na ko kon ñun lu ñu bëgg daal liñ ko doon ñaan daal dafa buggoon jàppale jigéen ñi ñëw na féetewu si jigéen ñi kon ñun duñu mën lu ñu ñaanal ko bon continuation loolu lañ koy ñaanal dañuy wax fii nag dégg nañ ko ñun ñëpp xam nañ ne suñuy bénéfice la ndax tey jii ku la ku la woo ci set woo la ci aar sa njaboot kooku dalaa bëgg a dimbal ku digal ku dimbali yaay rek dimbali nga ñëpp yaay moo yor kër ñun yaay yi ñoo yor kër yi ndax tey jii kuy jug 6 heures du matin di wuti yi pour say doom nga ñëw bokk avec suqali yëpp ñoo yor seeni kër parce que soo gisee ñuy bokk di natt di séddoo ñu ngi sant xalifa di ko gërëm parce que xalifa jàmbaar la wax dëgg yàlla ku mën a yor ay jigéen ñun jigéen dañoo bari problème mais ku ñu mën a yor rek jàmbaar nga ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal lii nag dañuy ñaan yàlla nañ ci dugg ci bisimilah jeexale ko ci alhamdulilah dañoo ñaan mu doon ay milliards ñun ay liggéeykat lañ ndax ku si nekk rek sa kees am na lu mu denc lu mu tuuti tuuti rek denc boo dencul 2 millions denc denc nga 3 millions ñu ngi liggéey ak suñu suñu bopp di ak femmes yi kon ñun dañuy ñaan yàlla lu ñu gën a yokk te yàlla na yàlla defar lépp. yàlla na yàlla defar lépp yàlla tàppe xol yëpp comme yàlla indi na ko si jigéen ñi nag ñun ñoom ñun moom dañuy wax ñooy félicité suñu bopp ñooy tàcc suñu bopp góor ñi nag moom dañ leen baal ci ginnaaw dama leen di sànni xeer. bëggoon a formation bi gis nañ ne jigéen lépp lu muy dugg gis nañ ne bëgg ngeen daan seen doole te des fois du ngeen wàllu formation leen mel ngeen gis ne andel na leen formation formalisé ba financé leen taxawaay boobu. waaw taxawaay formation yi moom dañ ci gën a dañ ci dañ ci bëgg gën a gis suñu bopp parce que am na ñoo xam ne jàng nañ te am am seeni i amalu leen njëriñ tey suñ duggee ci formation yi dinañ ci gis seen bopp parce que am na ñoo xam ne dañuy def frise de légumes am ñoo xam ne ñu ngi ñu ngi ci foire yi am ñoo xam ne ñu ngi jënd ak jaay comme ñun dañuy jënd ak di jaay kon ñëpp mën nañ ci gis seen bopp moo tax li mu indi nii daf ñoo gën a jàppale gën ñoo dooleel parce que jigéen ku ko dooleel rek danga da ko gën a yokk liggéey daal parce que ñun daal dañ koy wax bravo loolu lañ ko mën a wax dañ naan ko moom ca kaw ca kanam rek tey jii tey fu ñu joxoñ rek ñun fu mu ñu woo rek ñu wuyu si ko. maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay. naka nga gisee financement yi ñu leen jagleel yéen jigéenu Cambérène. financement yi moom ni ñu ko jagleele moom baax na dañ si kontaan yàkkamti woon ko lool parce que ñun takku liggéey rek lan xam kon bu ñu gisee ku dooleel ba man ñu jox lu liggéeye dañ koy sant rek gërëm ko yàgg nañ ko xaar nag. ba tey nag muy doog a ñëw moo tax ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñëw bàyyi suñu journée yëpp ñëw pour xool si waaw jotagun nag xamaguñu mais dañoo ñëw pour xool ba xam lan lan lan lan fi fekk si daal waaw. luñ leen joxit ngeen fa yéene dem jébbal ko mbootaay. waaw fa yéene liggéey ak mbootaay bi ndax li ñoo fee laa force mhm. lu kenn man ñaara ko dàq waaw bu ñëwee pour ñaar nit sax fekk. 70 personnes ñu ngi xaar suñu demee li nu fi wax dañ leen koy séddoog ñoom bokk ñoom lépp waaw. mbokk yi mu ngi noonu dégg ngeen li nga xam ne moo di askanu Cambérène rawatina jigéen ñi yi nga xam ne mooy kàddu yi ñu fi yëkkati ñëwoon tey ci mairie bi récupérer si ak ay wut si information jëm ci financement yi waaye jël seen financement. xool naka la ñuy yóbboo mbootaay donc pour mën a dem liggéey ñoom itam ci seen i kàddu mbokk yi dégg ngeen jaajëfal nañ bu baax a baax ki nga xam ne moo di monsieur le maire Doudou Pathé Mbengue ci taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci ñoom gor ca wax ja loolu la leen diggoon def na ko mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jox leen dig daje ba beneen